gaa ci la ñuy njëkk muy yoof di ngor di almadi di Cambérène di di Malika fii may wax ak yéen ma mbaaw seeni casquette yi ci yëpp dem nañu depuis 16 heures noo ngi commencé dugg sur le terrain lu tax na soxla loolu président de la République dafa demander à ce que le pandémie là nu fexe ba mu jóge ci réew mi ministère de la santé nag ànd ak euh, euh, Abdoulaye Diouf ak i di rayante matin midi et soir pour loolu ay millier et des milliers de morts ngeen di digg ci àdduna bi ay milliers et des milliers de morts 450 000 morts dans le monde entier ñun Sénégal de résister te soo xoolee ñi nga xamante ni noo lee malade gii génn ñibbi seen kër noo ëpp ñi actuellement ñu nga xam ne ñoo nekk en instance donc ay efforts yu remarquable la yoo xam ni ministère bi def na ko li ma bëgg mooy ñu àndandoo def bloc derrière ces autorités jàpp ànd bokk ndey ak bàyyi ndax réew mi ñun ay patriote lañu war a doon c'est pourquoi j'ai demandé à ces jeunes là ñu yor ay hydroalcoolique yor ay masque sol ay gants dugg ci nit ñi même suñ la jànnee dugg ci nit ñi yow waxal li nga xam ne moom nga war a wax suñ ko defee yaakaar naa ni ak ñaanu xalif généraux yi muy muy Tivaouane muy Touba muy Ndiassane muy muy Yoff kii wóor na yàlla am nañu yaakaar ni maladie bi dina fi jóge yéen journalistes yi aussi yaa ngeen di jouer un rôle important parce que lu mel nii yéen ñëpp ñu ñëw pour lancer message boobu du ma def loolu di leen gërëm di leen sant di leen wax ni leen malade bi day jommal na réew mi jàmm jommal na Sénégal dee leen raxas seen loxo dee leen masqué wu tisit yi sor gis ngeen ko toutes les mesures barrières yi ñuy wax mi ngi fii nu teg donc lii rek message la maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mbes mi yàlla na fi gaaw a jóge di gërëm le ministère de la santé ak tous ses services ci support bi nga xam ne de communication apporté nañ pour nu mën a wax nit ñi pour mën a éradiquer la pandémie du Covid 19 je vous remercie.